mooy problème mu euh, atelier tey gis nañ ni déguerpissement yi bëri na trop parce que foo foo gars yi samp ñu déguerpir leen ñuy ñaan état bi que mu mu gëstuwaat fondeur forgeron yi donc moderniser leen parce que bu leen moderniser dootuñu amati problème fu ñu jot ñu samp parce que loolu tamit problème la artisan yëpp problème artisan yëpp mais fondeur moom moo ci gën a moo ci gën méttale assurance jëluwaa yàlla boobu noonu daf ñu sonal parce que indien bi mënul jëndee fii aluminium Sénégal yóbbu ko Inde produire ko ñeu jaar ñuko alors que ñun au Sénégal ñu ngi am nañ ay artisans yu xarañ il suffit que rek ñu jox ñu ay matériel donc nañu mëna produire lepp ñom li ñuy produire ba paré ñuy produire di exporter comme ñom il suffit que rek état bi nous, ñu ñun dinañ ci dinañ ci mën dem li ci dess moy que moyen c'est que nous avons pas bon d'espace pour mieux s'exprimer vous savez depuis que nous sommes déguerpis à Colobane nous savons où aller. Donc nous avons des problèmes. Jusqu'à là où je parle, l'État nous a... Euh, nous a dit qu'il y a des places à Djamnyadjo, mais jusqu'à là où je parle, nous avons rien Donc nous lançons un appel au président Maxal et le nouveau ministre de l'artisanat pour qu'il nous aide.